asalaamaaleykum mbokk yi donc ñu ngi rafetlu ci teewaay bi euh, maa ngi tudd Ansoumana Diémé nekk maire de Moulomp Moulomp bi nga xamante ni mu ngi dans le Boulouf en Casamance dans le département de Bignona et plus particulièrement ci arrondissement bu ñu ne Tënd di maire yi nga xamante ni ndaw maire yi nga xamante ni ren yi ñoom ñoo gagné vraiment ci élection yi nga xamante ni moo jot a jàll di élection locale Euh, ñu gañe ko nag ci kuréelu UCS UCS bi nga xamante ni tey yàlla boole na kilifa UCS ak kilifa bi nga xamante ni mooy président de la république ñu bokk di liggéey ensemble. dañ fi teew parce que am na kenn ki nga xamante ni vraiment conseil spécial la président mu tudd Ousmane Sakkal Dieng nekk maire effectivement bu Sakkal moom moo ñu yombalal mbir mi ànd ak xaritam yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu yombalal ba yàlla dogal ñu dajeeg président de la république moom nag yemul si ñun rek parce que mi ngi koy def aussi. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te loolu la président soxla ñu koy jox information bu wóor bi nga xamante ne moo koy permettre mu xam li ne ci biir dëkk bi ak li ne vraiment ci gox goxaat yi ñun nag nekk ay ndaw te yàlla def ñu gagné euh, ci woote président la république mu nekk président de tous les sénégalais saa yu wootee bépp sénégalais da ko war a wuyu surtout ci li nga xamante ni dafay jëm ci suqali réew mi ba pare ànd liggéey et jàppale vraiment président de la pour réew mi jëm kanam ci cadre boobu nag lañ fi teewee. ñëw ak délégation bu takku ñëw naa ak coordinateur UCS ñëw ak coordinateur réew mi ñëw aussi ak responsable bi nga xamante ni mooy responsable S2D ànd ci nag ak premier adjoint au maire bi nga xamante ni moom moom moom laa àndal ak délégation ak ay conseils yi nga xamante ni ñoom ñoo ci bokk bokk ñëw ak ñun pour ñëw gisante ak président de la République gise bi nag am na solo parce que ci cadre bi nga xamante ni waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci lépp li nga xamante ni li jëm ci commune Mlomp ak li jëm ci Casamance ak li jëm ci développement jàmm ak vraiment inclusion sociale maanaam déggoo te liggéey donc ci cadre boobu waxtaan nañ ci ak président ba waxtaan ci ba déggoo président tamit jox ñu ay ndigal ñu war ko mun a topp ñu ànd tamit fu mu toll nii nangu nañu nii incha allah dinañu toog liggéey ànd ak président pour liggéey réew mi loolu moom jël nañ décision nii dinañ ko def man en tant que maire la commune de Moulombe jël naa décision ak ñi ma àndal pour vraiment euh, topp ci ginnaaw président la république Euh, topp ay ndigalam ba pare di liggéey pour que réew mi jëm kanam ñu ngi rafetlu encore en tant que ndaw euh, Casamance yi nga xamante ni tey on a vécu te on avait vécu doon loo xamante ni amoon na démb te tey yàlla def na ni ak euh, efficacité bu président de la république ak vraiment yëg-yëg bu mu am ci biir dëkk bi tax na ba tey jàmm mi ngi dellu ci biir Casamance te ñun ndaw ñi dañu am espoir ni avec le président de la république am nañu yaakaar ni la paix reviendra définitivement ci biir Casamance loolu nag boo gisee mu am c'est parce que président dafa am yëg-yëg ci biir région boobu ñun nag dañ ko war a delloo njukkal njukkal bi mooy lépp li nga xamante ni président teg na ko ci cadre liggéey ci cadre programme ak ci cadre assistance ñun tey ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk biir Casamance war nañ ci mën a teg suñu xel teg ci suñu xalaat mun a ànd ak moom parce que tey boo gisee sécurité bi am foofu boo gisee nit mun a jógee euh, Ziguinchor à n'importe quelle heure di ñëw Ndakaaru c'est parce que am nañu yëg-yëg ni effectivement président def na li war ba ku nekk am sañ-sañ di mun a doxantu ni mu la waree ci biir réew moomu maintenant am na li nga xamante ni tamit foog ñu wax ko c'est vrai que Casamance discrimination bi xaw na bëri mais terewul ñun tey am nañ ci wàll boo xamante ni war nañ mën a wax ñëpp ni Casamance c'est une région de et Sénégal cest à dañoo bokk ci biir Sénégal donc duñu bokkee ci Sénégal am nañu sañ-sañ ñëw saa ñu amee lu ñu bëbët wala saa ñu amee li nga xamante ni euh, euh, war nañ ko kaas war nañ ko kaas ñëw toog ak président de la république mu mu saafaral ñu ko te lépp li nga xamante ni jot nañ ko ko wax vraiment président de la république jot na ko saafara donc ñun tey en tant que ndaw gis nañ ni président de la république mi ngi def lu war ci mbirum région de Ziguinchor mi ngi def lu war effectivement ci Casamance dans son général donc bu ma jege xëyee foofu rek dinaa ñëw tuuti ci législatif yi parce que mbir mi am na tuuti solo ñu ngi ñëw ci législatif yi ay élection yoo xamante ni président de la pour que pouvoir bi ak euh, li nga xamante ni moo ko war a mën a mën a doole par rapport à projet projets à ces programmes il faut mu am majorité à l'Assemblée nationale majorité bi nag pour ñu mun ko ko jox il faut que d'abord jeunesse bu Ziguinchor jeunesse bu Casamance jeunesse bu Sénégal jàpp ni effectivement c'est seul avec le président de la République la mun a réaliser suñu ay programme donc moo ñu tax ñun ñu gis ni législatif yi ñëw yi lancé appel c'est vrai que élection la ñuy dem di lancé appel comme président ni mu ko waxee rek na nekk euh, élection apaisée mu nekk élection ku nekk nga dem tànn ki nga war a tànn waaye ñun jël nañ suñu décision ni ñi président tànn pour ñu jiite effectivement législative yi ñun tamit si ñooñu la ñuy jàpp pour vraiment ñu mun a dooleel président mu assemblée nationale bi afin que mu mun a liggéey convenablement avec ses programmes et ses projets mais du tee Ziguinchor am na ci wàll Casamance am na ci wàll donc di lancer un appel à toute la population à toute la jeunesse bi nga xamante ni moo nekk biir Casamance que ñi nga xamante ni ñoom lañ jël nañu nangu topp seen ginnaaw ñu topp seen ginnaaw pour a jàppale président de parce que président ñooñu la tànn pour ñu a jiitali si nañ seen ginnaaw jàppale jël assemblée nationale jébal ko président de la république mu mun a liggéey convenablement afin que programme yi ak projet yi nga xamante ne am na ko te yëg-yëg mu am pour Sénégal yëg-yëg mu am pour Casamance vraiment président mun ko yëgalee si jàmm incha allah.